sëñ Mourtada danoo toog Suisse muy seetaan kaset bu ñu ko tegal noonu ca Suisse euh, bu muy wax ma ko xool mosuma gis sëñ Mourtada kii nag waaye gis naa ne ay bëtam taan ak mu yàgg mu yàgg euh, fekk na lu jiitu keroog ba mu ñëwee ba dafa ma ne waaw moom de euh, yow de defe naa am jàpp na la jàpp biir loolu la ma wax daal ni moom moom day dafa tëddut ndax danoo nax ba dem. waaye sàllaa bu tuddoon ñu di ko seeti day eh, dana am yooyu dañ ko jëfandikoo te kon du dem ndax jëf leel képp ku bëgg lu baax te bëgg jëf te mënoo jëf ci saalal ak wax loo xam ne lu baax wala luy defar loo xam ne li naroon naa yàqu mu defar ko ci waxam nga xam ne wala tontu loo xam ne lu mënta ñàkk la lu ñu war a tontu Euh, mu tontu tontuwaaleel képp ku bëgg lu waax te xam lu baax te dégg lu mu war a tontu te mënuñu yaa tontu wala amul fitu tontu ca wala wala amul fitu wax ca kenn fekk ko ci